mbokk yi ànd na Yaatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar lu ñeel mbirum Ousmane Sonko ginnaaw wala gin ko woolu woon diggante mag Mame Mbaye Niang loolee nag pamti pamte gi nga xamante ne bii amoon na ca boo bale ba jotoon ñu ko sotti lenn loo xamante ne bii. ab liquide la loolee nag ginnaaw bi ñu ko sottee nag mu indi woon jeexi jaaxa jafe-jafe ci kaw aw yaramam loolee nag moom mii di Ousmane Sonko nee na kat li nga xamante ne bii nii moo di test yi génn na jóge foofule ca bitim réew waaye bi mu dikkee nag xamle na ne li nga xamante ne bii moo di takk der yi kat danoo naroon a jël li nga xamante ne bii nii moo di bakkanam ci bis boobee nga xamante ne bii ci la waroon a janloo ak kii di mambay ñaa waaye nag nee na li nga xamante ne bii moom la résultat yooyee génne ne ñii danoo naroon a jël bakkanam loolee kat duñ bàyyi benn yoon mu sedd ndaxte kat loolu dafa war a jeex ci biim réew waaye nag li nga xamante ne bii mooy dëgg-dëgg mbir mi. bala mu cee mën a wax il faut day dem ba nga xamante ne bii mooy bis ba muy janloo ko lenn ci taskatu xibaar yi ngir kat mu mën a leeral dëgg dëgg li nga xamante ne bii moo xew ca mbir moom la ñuy lamlaamee ak mbir moom la nga xamante ne bii moom la résultat yi génnee ci jamono joojee mu doon wuy ji foofee ca yoon ten pamti pamti woon ko am lu nu sotti ca kawam ko kooku xamle nag di Ousmane Sonko euh, mi jiite euh, partie bi di Pastef coalition Yewwi Askan Wi.